salaamaaleykum moom internet yi ñoo ngi amaan mbégte ak bànneex di leen indi li ngeen xam ne ne mooy seen programme saa su ne rek fii nga xam ne mooy seen chaîne YouTube euh, Kifne TV waaye tamit lépp loo xam ne programme rek dañ leen ko indi tey nag ñu ngi fii si euh, Kër Massar si ñëw si li nga xam ne ne mooy euh, point de presse bi am fii si Kër Massar ak ñi nga xam ne ne mooy Benno Bokk Yaakaar Kër Massar Nord tey ji ñi amal benn point de presse lépp loo xam ne rek waxtaan nañ ko fii rek ak lan moo war a tey ji ndaje bi incha allah dinañ leen ko indi fii si seen télévision Kifne TV gi da ngeen daal may topp rek ma wan leen lépp loo xam ne ne moo ci xew rek incha allah ñu daal di ñëwaat si kanam tuuti. Ceerno Seydou Diallo coordinateur d'AJPADS chargé des élections de la commune euh, de kermosar Nord de Benobok Yakar. Je vais vous faire une déclaration euh, de la coalition Benobok de Kermosar. Considérant la récente circulaire de la majorité présidentielle en date du 8 août 2021, paraffée par le président de la coalition Benobok Yakar, appelant à la présence effective de la coalition Benobok Yakar dans toutes les commissions administratives pour le contrôle et des opérations, l'inscription massive de nos concitoyens sur les listes électorales pour leur permettre d'accomplir leur devoir citoyen, de se choisir librement leurs dirigeants au niveau des terroirs, la mobilisation de manière particulière de nos jeunes militants et sympathisants de ce devoir citoyen, l'accompagnement de ceux qui ne disposent pas de la pièce d'identité nécessaire à leur inscription sur les listes électorales, la sensibilisation des uns et des autres qui retirent au moment opportun leur carte d'identité électeur, considérant le rappel des principes directeurs de la grande majorité présidentielle qui nous ont valu notre très belle tradition de victoire depuis 2012, que sont l'unité, l'ouverture, le consensus, la mobilisation, la discipline, qui sont des principes à renforcer. Considérant la demande du président de la coalition aux responsables, aux militants, aux sympathisants de la coalition Bernobok Yakar de rester mobilisés et attentifs aux orientations de la coordination la coordination de prend acte et se plie à ses directives. Mais continue de dénoncer les manœuvres politiciennes perpétrées sur le dos de la coalition Benno Yakar Kermassar, qui a toujours assuré avec brio les belles victoires éclatantes de Benobo Bokeyakar sous la houlette de l'honorable député maire Moussa Mbeng. La coordination condamne avec vigueur les manœuvres de M. Benoît Sambou qui procède à des manœuvres politiques politiciennes pour se débarrasser d'une personne gênante à ses yeux dans le département de Bignona. Il tente de manière chirurgicale de se débarrasser de Mme le ministre Aminata mhm. en le jetant dans la gueule du loup de Kermassar pour éventuellement hériter du quota de poste ministériel à Bignona sans contrainte majeure. La coalition Benoît Bokayakar Kermassar, fort de 36 partis et mouvements, dont l'APR, la JPADS, la DRISL, Oser l'Avenir, TCDS, Mouvement Bolo Soukhali Kermassar, UDSA, Mouvement Sopé Marim Faisal, Mouvement Defleng, MSU, MPCL, Louis Djordjordna, UDF Bolomi, Démocratie Citoyenne, Mouvement Sénégal en Progrès, GIR, AFP, AG Djougna, PIT, URD, CRC, Mouvement marim Réma, Yakar, la République euh, la la RP, le mouvement des artisans, le Parti socialiste, le AABDB, le modèle, le UNP, le Yesal Tahawai, le IDP et le PAI demandent au président de la République, le président de la coalition Macky de veiller aux prérogatives qu'il a attribuées à certains de ses hommes de confiance qui en usent et en abusent pour solder des comptes personnels, comme ce fut le cas récemment à Kermassar, où le mouvement Diapo Assom a été privilégié au détriment des 36 partis et mouvements de la coalition Benobo Yakar. À cet effet, à cet effet la coordination de Bernard Bokyakar demande au président de la République de respecter le choix des Massarois porté sur l'honorable député maire Moussa Meng pour diriger la coordination, la destinée du département de pour, diriger la destinée du département de Kermassar et des choix de ce dernier sur les communes de Kermassar Nord et de Sud, au risque de voir la coalition en péril, ce qui serait une première depuis 2012. Par conséquent, la coalition Beno Bokeyakar Nord demande aux militants et sympathisants de continuer le travail de massification et de sensibilisation à la base pour maintenir la flamme victorieuse de la coalition Bello Yakar et pérenniser les efforts consentis avec l'honorable député maire Moussa Meng afin de confirmer les belles victoires acquises sous, la, sous sa direction. Je vous remercie sur votre admiration. Merci. Euh, Benno Bokk Yakar bu Massar am benn message clair pour le président de la République son excellence monsieur Macky Sall mom mi nga xamné mom moy le chef de la coalition Benno Bokk yakar xamal ko neko ñun wa Benno Bokk yakar bu Kër Massar dañoo am mbettel mbettel bu reuy ci li fi jotta xew moy lan commission électorale bi dafa ibbi nañ ko daan défé lañ ko defaat ñu dajé wa coalition Benno Bokk yakar bu Kër Massar tànn suñuy ñaari nit yi nga xamné ñoo ñu war biir commission électorale bi war a saytu mbiru révision électorale bi à notre grande surprise jël nañ suñuy ñaari nit ya nga xam ne jébaloon nañ ko Moustapha Meng mi nga xam ne mooy coordinateur benn Bokk Yaakaar bu Kër Massar mu jëloon ko jox ko Abdoulaye Timbo pour mu jottali ko Benoît Sambou ñu yëg ne ñaari nit ñooñu la ñu remplacer ak ñeneen ñaari nit ñoo xam ne benn mouvement moo ko proposé te mouvement boobu mooy mouvement wu Assome Diatta loolu la ñuy dénoncé te loolu du dëgg du yoon ndax coalition bu tënk 36 entités ñoom ñëpp ñu toog. te nañu liggéeyee depuis 2012 ndax ñi fi taxaw ñii mbooloo bi yëpp ay responsable politique bu Benno Bokk Yaakaar lañu ñoom ñoo gagné les élections di ko euh, euh, gagné comme ni mu waree président de la république donne ci content, te amul ci benn problème Kër Massar mu ci am problème nous avons les responsables authentiques sommes sièges sièges ci centre de vote nous sommes les des présidents de centre de vote nous sommes les des mandataires sécuriser l'élection au Benno Bokk gagner le président Macky Sall le résultat au soir de chaque élection depuis 2012 je pèse bien mes mots avons nous ñu jël lépp euh, euh, Moustapha Meng moom mi nga xam ne moo le coordinateur mu jël résultat yi doon ko jox Abdoulaye Timbo Abdoulaye Timbo doon ko jox Benoît Sambou ba na muy accès président président di ñu félicité te loolu présidentiel romb na ñu gagné élection locale romb ñu gagné référendum romb ñu gagné législative romb ñu gagné coalition bi, moo ko daan def kon nag dañu liggéey loolu depuis boobu ba depuis 2008 ni fi taxaw ni ñëpp ils ont travaillé sans moyen je pèse bien mes mots sans moyen ñu génnee seen i dërëm ak seen i ñaar dërëm tey la seen njaboot tey la seen jot seen temps def lépp sécuriser le président de la république basam bi nga xam ne moom la fi yàgg am te moo nekkoon Kër Massar fii kon tey du ñu nangu boobu ba léegi ñuy muñ di toog di xaar sonn bay bëgg a dee si parti bi torox bàyyi ba département taxaw ba ñuy am yaakaar ne lañ doon rêvé mu ngi bëgg agsi te mooy lan département bu ñëwee

PV yi daan jàll ci élection yëpp mu ngeek moom na vérifier la liste des personnes yi nga xam ñoo doon assurer les élections ñii la fi fekk ñi fi taxaw nii ñëpp ce sont 36 entités ci bir Benno bi kon assom Diatta mom nga xamné ne Bignona ba mu waroon Sonko lu nek lay yak président munoon na toog foofu xeex jàppale ñoom Benoît sambu sa Ziguinchor ak ak Bignona ak sédju fexé ba nag euh, APR mën fa gagner comme ni Kër Massar daan gañee ak ni ñeneen gox daan gañee kon moom du cëram moom ministre bi ministre du commerce la amul lu ko président desel dimbali na ko taxaw na ko teral na ko na yem si loolu warul mën a ñëw fa fii ñuy rayante suñu mairie ba mbir suñu mairie taxaw mu koy xëccoo ak ñun loolu lañ ne nag duñ ko nangu tey duñ ko nangu ëllëg te incha allah luy si kanam xam nañ ko bu baax ndax dañ ne fas bi nga xamante ne moo daan gagné course boo demee ba war ko joxe ay nit ñu la ko war a teel waroo xool sa xarit di ko ko jox mais xoolal ka xaritoog fas boobu nga jox leen ko ndax boo ko deful noonu boo ko bëggee def ay affaire u xaritoo jël fas boobu daan gagné xamoo la ka daan dundal xamoo la ka daan euh, euh, euh, la ka daan suuxat ngeen bàyyi ba heure bii di ko jox keneen ndax sa xarit la loolu duñ ko nangu ndax ñun politique bi suñu fulla ak suñu fayda lañ si boole te du caaxaan ndax suñu commune kër masaar bi kenn duñ ko yàqal asom man lu ma amee lu may wax si président Macky Sall mooy na ko wax moom xaalisam boobu muy yore di pasar pasare si askan bi yakaar ne si loolu lay jëndee askanu Kër Massar elle se trompe na denc xaalis boobu ñëw jàppale ko responsable de base yi fi yàgg nekk ñooñu ñëw taxaw jël sunu mairie te mu bañ a nekk fii naan day xëccoog ñun ay mairie te muy ministre boo xamante ne ministre de la république la loolu du dëgg du yoon te lii tàmbale la li nga xam ne mooy les plans d'action à suivre sa kanam xam nañ ko te dinañ si def lépp lu ñu mën bu jaree dee dinañ dee bu jaree xaru dinañ xaru bu jaré baye parti bi dañuy baye parti bi waaye dafa am lo xamné duñ ko nangu fi ñoo fi yàgg xeex voilà les responsables yi fi nekk dinañ tok défé ko comme niñ ko daan défé organiser les élections taxaw wat suñu Kër Massar téye ko nak bu dul dara ñun ñëpp ay doomu dëkk bi lañ nekkul 1 an et demi lañ fi am Assom Diatta samedi bi passé le premier août lay dogo def son transfert de vote à Kër Massar pour man fi légui di man di voter Wa ku mel nonou nakara ah, la ko waa Kër Massar wara djebale sen bop bakay denk mairie te mu yoré ministre commerce lolou du cëram muy xëccoo ak ñun président nak liñ lay wax leer na nañ te ñun paré nañ sur tous les plans pour continuer combat bi continuer xex bi jusqu'au soir des élections na na woon fa woon nañuy élections yi non lañ koy gañawaat wasalaamaaleykum wa rahmatulah taala wa barakaatu.